Aïda Mbodj moom aussi waxtaan nañ ci moom lu yàgg yàgg lu yaatu avant sax euh, plateau bi ndax euh, nee nañ ku sénégalais jox cër la ku sénégalais di bàyyi xel bu baax a baax a baax la mais dañoo ñëwoon léegi ci général Jean Baptiste nga def ci développement bu am solo ndax buñ ne takk der da nga ciy xam lu bëree bari mais beneen général boo xamante ne dañ ko nommé moom tamit moom lañ jox euh, les force moom lañ jox force force force force armée muy le général biram Diop moom lañ jox. wàllum euh, wàllum armée bi jamono ji est-ce que. prise de force armée prise de force armée est-ce que tamit bi nga gisee euh, nomination bi foofu noonu amoo loo wax wala loo xalaat sa ginnaaw nga ni poste bi kat diw moo ko moo ko waroon laaj wala nga xalaat leneen loo xamante ni am na koo xamante moom nga fa doon teg keneen ku dul moom. dana wax benn affaire. Hmm. avant muy génn armée. waaw nekk chef détat tamaso général des armées des forces xale yi militaire dañuy wax naan cey boo ko laal loolu ci cas yi ak fépp cay bu ko laalee. bu laalee général Birame Diop parce que général bi dañ koo xam ni un homme crédible dana wax ni. Mhm. kii euh, boo nekkee chef di commandé. waaw ki ngay commandé def ko comme sa doom. comme mhm. yéerewoo sa doom teg ko lu tàng ci loxoom bu ko teg sa si ba ci loxoom. Mhm. loo ab boo lim liggéey ba sonn. waaw bu départ da nga ñëw jox ko sa doom kon boo amee dara bokk ko say subordonné. say subordonné. te buñ la tooñee mën nga ko mën nga ko corriger. mais bul ëppal. un bon chef. waaw chef bu crédible. Mm-hmm. bu baax bu am xam-xam. bu am personnalité. Mm-hmm. Euh, kooku Birame amul général Birame Diop amul militaire bu ko mos a contesté amul. amul pendant processus am euh, am yëpp amul gis nga. normal fekk ni Macky Sall patriote la woon. républicain la woon. Mm-hmm. ba muy jógee armée suur ba mu jógee da koy nommé da koy nommé ministre man maa la ko wax. bu fekkoon waaw parce que am na général mel noonu général ñaar nekkoon na fi nekk ministre de l' général Seck nekkoon na fi nekk nii la xoolal ñoom saa bu ñu yoree fonction ministérielle ministre boobu ministère boobu da am problème bi Macky Sall ragalee ci général Pathé Seck dafa teel a daw teel ko génne. Mm-hmm. parce que bëgg Macky Sall bëggul ñu mel noonu Macky Sall liggéey kat ndax du liggéeykat fu dëng fu foo xam ne dafa fulu. Mm-hmm. kuy def lu fulu doo bëgg ko leeral te xam nga un gendarme quand même du n'importe qui que loolu neex ngay def parce que ni leen yare ni leen inculquer jàngal ni leen instruire. xam nga euh, lu tax ñoom force de sécurité défense am am benn sens. waaw dañoo dañ leen di éduquer ba pare instruire leen la majeure partie des des des sénégalais. Mm-hmm. dañ leen dañ leen di dañ leen di instruire mais du leen éduquer. waaw l'armée da lay instruire ba pare éduquer na. Mm-hmm. inculquer ay valeur ngay jomb di rus. Mm-hmm. source officier yi ñu ne ko jomb naa lii ndax lii rus naa lii ndax dee la leen gën wax lu dëgg li gën a garaaw ci officier du gën a garaaw ci officier. waaw mooy dañ koo tere mu fenn mu lu dëgg subordonné il n'a pas le droit de mentir son subordonné. Hmm. il n'a pas la de mentir. quand il dit le contraire la vérité. waaw euh, le Sénégal est en la la nation est en genoux. Hmm. mais dafa dafa mel ni ngay waxee am nga am nga benn estime wala benn respect bu mag ci général biram euh, biram Diop. cest à moom mënoo ko bañ a respecté. mënoo ko bañ a respecté warul la lenn loo xam ne mën ko bañ a respecté. Hmm. il faut nga respecté ko. waaw ah. moo la gën a tabee li mu am da ko séddoo ak yow. Hmm. te lu am bàyyi ko ak yow. non non dafa doog a respecté. waaw. ah <laughs> li nga am yow. mais loolu est-ce que est-ce que am na relation wala am na loolu est-ce que bokk na ak dara poste de responsabilité bi ñu ko jox en tant que ministre des forces armées. loolu nag voilà voilà voilà voilà un bon chef. un ministre. da war am nu war a mel. lu ministère bi moom da koy bàyyi ministère bi. bàyyi ko ñu nekk ci ministère bi. Mhm. bàyyi ko réew mi ak état bi. li mu moom mu séddoo ko citoyen yi te loolu moo nekk ci biram mhm. dama ne. waaw loolu moo nekk ci moom. moo nekk ci yàlla xaw ma nag Ousmane fu mu jaar. waaw ba xam ñaar ñii ba jël leen ñett sax lañu. kan ak ñett lañu sax. kan Ousmane Diagne magistrat. waaw. Euh, nu mu tudd. Jean Baptiste Jean waaw ak Birame Birame Birame Diop. Mhm. xaw ma nag. moo tax man la ñii. mais ak lu mën di def voici moo tax man la ñii jomaay mii. waaw ak sonk mii. waaw na leen sénégalais yi moytu. waaw na yi moytu. Hmm. parce que il tâtonne pas dans sécurité ku tànn Birame Diop def ko ministre des forces armées. Hmm. tànn euh, tànn Samba def ko ministre de ministre des forces. Hmm. ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur. waaw tànn. Ousmane Diagne Ousmane ko ministre garde des Sceaux. gàcce ngalaama. ñett ñi convaincre nañ la gàcce ngalaama la wax. man non yàgg naa dëkk bi te xam-xam mooy lan. waaw a fekk tey jàpp. <laughs> lu ne fekk naa ko fi. Uh-huh. gis naa fi ministre bu ne. waaw gis naa fi président bu ne. Uh-huh. gis fi commandeur bu ne. waaw gis naa fi bu ne. Uh-huh. mais doole yëmut. doole. yëmut cest à bu fekkee bëgg rek xam nga lu gën a bon. waaw am xam-xam te gën a gën a gën a doo leen dégg am xam-xam pare juboo mu gën a bon li gën a bon un intellectuel bu jubul. li gën a bon mooy ku am xam ku yor pouvoir te juboo gis nga ñaari bu amee xam-xam te juboo wala nga am yor pouvoir te juboo c'est fini dëkk boobu daanu na te ñoom tel n'est pas leur cas. waaw gëm naa ne ñoom ñett ñooñu xaw ma fu ñu leen jëlee ñoom xaw ma fu ñu tax ba jël ko moo tax ma la ñuy ils sont bien renseignés. Hmm. ils sont moo tax ñu naan ay la ñoo xamuñu réew mi xamuñu ils n'ont les sénégalais là. Hmm. mécontents yi ils n'ont hmm. fi ñu teg mais nañ seetaan yi rek. nañ leen seetaan te weera. dama ne tey Macky Sall nañ ma wan benn ministre. bu gën ñetti ministres yi ne wan nañ ko teg taabu amul. bu gën ñetti ministres Ousmane Sonko amul amul. amul amul benn ministre bu toll ak ñoom il a fait ici ñaata douze ans. Mhm. quatre mille trois cent quatre vingt jours a benn ministre bu toll ak yi ñetti ministres yi. amul <laughs> euh, mais tey ministres mhm. waaw magistrat. waaw le général euh, Tine. Jean Baptiste Jean Baptiste na ma Macky Sall ñun benn ministre bu toll ak am na Sénégal amul xam nga ñu ngi doon commencé ñoom. buy xam-xam ak lépp. ci lépp ak njub xam-xam ak njub. dama ni ma wax la benn affaire. waaw xam nga ñu ngi dugg ñu dugg tey. waaw dama fi nekk naan. Mm-hmm. Euh, bu subaa dama leen évaluer non. def nañ am def nañ li war a def ba pare ñoom. ñoom. Mm. dañuy ñëw pour dimbali ñu. waaw xam ne Sénégal dafa nekk en genou. ñu ñëw pour jàpp ñu. Mm. mais bu dee ci liggéey. Mm. liggéey nañu lañu war a liggéey ba pare ba gàccee ngaalaama. xam nga Augustin kii bi tim yi koy dàq ñaata moo ko dese mu dem retraite. waaw ñaari moo ñaari weer. ça c'est extrêmement grave c'est humiliant mais il n'accepte pas il n'accepte pas les conséquences de Macky Sall. samay. Hmm. deux mois au moins mu respecté ko bu deux mois yi bàyyi mu dem. waaw mais parce que te Macky Sall dafa rancunier moo tax tey j'ai dit au président. waaw ah. vous n'avez pas le droit. Hmm. de laisser Macky Sall mu dem génn réew mi. xam nga tey bu nit ñi wax. man man charge bi ma doon. waaw kenn mënu maa tee wax li nekk si ma dëgg. mi ngi taxaw ma ma jël ma jël parole nuyu ko sant ko ni ko nag fii gars yi génne man dama fa génn. waaw fi may génn mooy dafa am lu ma ñor dañoo rey soixante sept personnes mooy de trente cinq ans. Hmm. jël suñu xaalis. yàq réew mi. waaw ñëpp ngi xuloo ñëpp ngi xeex ki ko def nañ ko jàpp. waaw. monsieur moo nekkoon sa combat tey mais euh, tey buñ bu mu waxee tension politique bi nga xamante ni am na ci réew mi. bi amoon amoon na ci réew mi. depuis des années lan moo ko waral parce que le président Ousmane Sonko dafa gisoon ressource minière bi nga xamante ni am na ci réew mi dafa gisoon. Euh, richesse bi nga xamante ni koom bi nga xamante ni am na ci réew mi te mënaguñ ko exploiter boo seetloo discours bërki démbam bi daf koy firndeel boobu ba léegi mu jël ressources yooyu noonu muy pétrole muy miin muy énergie teg ko ci loxoy Birame Souleye Diop son na son ami de compagnie son ami de longue date muy Birame Souleye confiance bi nga xamante Ousmane Sonko am na ko ba jox ko ministre boobu noonu ak post bi nga xamante ni jox na ko ko ñëpp xam nañ ni poste stratégique la pour développement réew mi jamono ji est-ce que poste boobu noonu d'accordoon nga ci ñu ci teg ci biram mais poste boobu joxoon nañ a médiocre Sénégal poste bii ki ko yoroon nii waaw ba a war a passé congé lundi c'est l'homme sama dëkkandoo bii dëkk cee na dëkk dëkk xombal waaw la magistrat la hmm. c'est l'homme le plus médiocre senegal qu'est-ce que lan la fi deful Sénégal hmm. lan la fi deful ci lu ñaaw lan Antoine la fi deful ci ñaaw lan fi waxul lu ñaaw am dama ni la confiance elle ne se donne pas elle se mérite. mais tey Birame Souleye ak posture bi mu am xeexkat bi. Euh, xeexkat waaw. gëm nga ni poste bi ñu ko jox euh, am na xam-xamuk gérer ko muy muy muy wàllu miin. lu jomaay mën a yor Sonko mën ko yor mën na ko yor. kon foofu tontu lu jomaay mën a yor. waaw Sonko mën ko yor Birame mën na ko yor. Mhm. mais mais mais loolu rek dégg nga wax la waaw waaw ah, y a des questions à ne pas poser. waaw kon day mel ni da nga ne da nga naan Sonko mënut a yor. mais mais mais ñoom ñett duñ benn ñoom ñett ba peut-être am na benn parcours boo xam ne niróole nañu ko. culture ñoo ko bokk. waaw mais fonction yi ñoo ko bokk. waaw comportement yi ñoo ko bokk. Mm. parti bi ñoo ko bokk. Mm. démarche yi ñoo ko bokk. Mm. dama ne Birame Souleye dafa fekkee ne démb. as yi as yi ñoo ko bokk. te Birame Souleye nag la joree maam Diop sant. <laughs> lu Sonko man. waaw euh, Diomaye man ko. waaw Birame man na ko. kon nañ am confiance ci biram dama ni. mais nag mais nag mais nag bi ñu yor nii.